maa ngi leen di fay di nuyu waa Tivaouane yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal ñu ci gàmmu geeg jàmm génn ceeg jàmm te ñëpp nekk ci jàmm. tey ñu gis nga indi teraanga yu mel nii di ko def muy action sociale bu am solo. Euh, bi ren mooy ñaata édition. bii xam naa ni moom mënoon nañu wax ni bii da ah bari na. war na mat ay <laughs> yàgg na daal. bari na daal c'est waaw c'est plus de vraiment c'est plus de quarante ans. lan moo social sa politique. non xam nga non dañuy wax mm, ndoxee kajoor dañuy weesaloo et puis da ngay dimbali sa bopp yàlla dimbali dimbali sa moroom yàlla nungul la. donc c'est extrêmement important. bu fekkee yàlla wërsëgal na la dara. nga koy nga koy nga koy nga ci nga ciy dimbali aussi ay ñeneen. c'est extrêmement important parce que kenn mënul dara. yàlla rek moo naan ah jox naa la. comme daf la jox nag te lim la jox moomu ko moomuloo moomuloo ko. donc dafa jaar ci yow rek il faut nga joxe ko donc moo tax ñu koy joxe. man joxin bi nan lay. joxin bi moom amul politique amul dara ku fi ñëw rek te soxla ko ñu jox ko am na aussi ñoo xam ne dañ leen recensé woon ci Tivaouane xam ni ay néew bi doole ñoom dañ leen di fekk seen kër jox leen ñu soxlawul sax ñuy bouger. mais ku mais ku déplacé fii ba ñëw fii moom il faut ñu jox la. mais sinon recensé nañu ci xam nga am na euh, revenu national unique xam ne ñi ñii ñëpp ñi am bourse de sécurité familiale. am ay xam nañ daal néew doole yi quoi ñu fekk leen vraiment seen kër jox leen ko pour ñu am ñu gàmmoo sans problème ñu toog non bëgguma nag toujours di wax chiffre bi parce que le chiffre n'est pas important parce que ce qui important ni ko président doon waxee mooy joxe bi xam nga man nga am tuuti joxe tuuti ku am ku am mille francs joxe joxe 900 yi dese 100 francs xam nga mu am ku am ay milliards ah ba pare di joxe ay cent mille ak deux cent mille donc ce important mooy li nga am nga joxe ko donc man damay joxe rek vraiment du ma évaluer sax ñaatal xam naa takku na waaw dama koy méngaleeg gàmmu gi quoi parce que quand même gàmmu gi ku xam Tivaouane xam ni nit ñi dañuy am ay soxla dañuy soxla ceeb dañuy soxla yenn daara yi dañuy soxla yenn yi donc vraiment moo tax ñuy joxe même euh, def ko ci joxe rek quoi. ah monsieur le ministre ñu nekk ci waaw wala wàllu xeet la pauvreté. ban gis waaw xam nga émergence du contre la pauvreté c'est extrêmement important. moo tax euh, président Macky Sall mu def trois axes axe beneen bi c'est la transformation structurelle de l'économie mais am na beneen axe bi nga xam ni dafa wax développement durable c'est-à-dire développement durable dafa am dafa ànd ak solidarité. c'est solidarité boobu nag moo tax ñu inclusion sociale ñu teg ko suñu programme muy euh, un donnée fondamentale de notre programme muy euh, cadre d'égalité des chances inclusion sociale euh, solidarité intergénérationnelle CMU yooyu yëpp ci lii yëpp ci xeet la parce que nit il faut nga démarrer ko boo ko démarrer ba nga xam ni que vraiment les besoins physiologiques mooy besoin lekk besoin naan réglé na ko mu mën a dem ci yeneen besoin yi daal di daal di daal di seq mais bu fekkee amoo dara dara dara ndóol bu ëpp kooku baaxul quoi dafay tirer vers la croissance heureusement croissance bi dina indi ay ay ay ay koom boo xam ne dinañ ci jël ah bu ñuy waxee inclusion sociale dinañ ciy jël loo xam ne dañ ko dañ koy dimbalee donc c' est e très c' est important ci PSE la bokk waaw c' est vraiment c' est un alignement stratégique du PSE Serigne dafa mel da nga dégg li xalifa bi wax ñu am doole nañu dimbali ñu amul ci guddi waaw loolu moom moom moom xalifa bi yàgg na ko wax ah xalifa fi jaar yëpp yàgg nañ ko wax bon ñun yàgg nañ ko jëfee comme loo xam ne da nga koy jëfee depuis 40 ans du affaire politique quoi on le fait vraiment xool ñu ci ñi ñëpp lañuy jox quoi loolu loolu dafa baax dafa baax sax ci nit nit ci boppam dafa baax parce que xam nga islam génne asaka daf ci bokk. génne asaka solidarité rek la c'est une solidarité organisée deux pour cent ci li nga xam ne jenc nga ko ren ba déwén ñu koy génne jox ko ay ay faqir néew bi doole yi mais lii nag dañ koy jox fii période dañ nekk ci période gàmm nit ñu soxla ko ñu war ko dajale daal leen koy jox. monsieur lan ngay wax ci gan ñi nga xam ne war nañu ñëw ci biir Tivaouane ndax du ko wax. gan yi gan yi il faut ma ñu laaj waa Tivaouane ñu tijji seen xol. Uh-huh. xam ni gan yomb naa mu jël. lu fi yàgg yàgg yàgg yàgg gan bi dafa def une semaine ñu ñu wàcc suñu kër yi génn suñu kër yi jox leen tëral leen parce que Tivaouane dëkku teraanga la dëkku teraanga la Alaaji Malick bu rombee dëkk yëpp ñëw dal Tivaouane dëkk Tivaouane dëkkal leen ba ba ba yore ko defi dëkk donc loolu dañ ko ko war a fay ni ñu ko war a fayee mooy ñu yaatu xam nga waa Tivaouane bu ñu yaatuwul woon bu ñu yaatuwul woon vraiment historiquement kon Alaaji Malick du fi toog parce que romb na dëkk yu bari fii la toog donc yaatu boobu nag bi ñu bi ñu bi ñu waa Tiwaawoon wanoon mooy suñu maam yi ñu ñu wanoon nañ ko dañ ko saxal xam ni Tiwaawoon yaatu mooy seen identité seen identité Tiwaawoon mooy yaatu mooy yaatu teral gan donc gan yi nañ leen teral xam ni gan yomb naa mu jël ñu fi nekk bariwul ñu génn néeg yi defar lép jox leen dégg nag loolu euh, ay jéego def nañ ko ci fan moo ci nekk sa man loolu moom dama ko yàgg kaas bi ma nekkee bi ma nekkee ministre délégué aux infrastructures projet yooyu def def def naa ko étudier naa sax étude ci boppam pour ñu def ko heureusement dañu am euh, dañuy dajale président dafa wax ni vraiment dinaa démarrer quatre cent kilomètres de voies quatre cent kilomètres de voies ñu boole ko ci ñu fexe ba boole ci ci foofu foofu ah PSD lañ koy tuddee ah PSD lañ koy tuddee ñu boole ko ci boole ci yoon yëpp vraiment euh, alhamdulilah ba vraiment ñu wax def ko daal di koy wax ci suñu ministre wax ko président wax ko yëpp ba mu boole ci yoon yooyu yëpp ko vraiment Tivaouane Tivaouane département Tivaouane am na ci yoon yu bëree bëree bëree bëree bëri yoo am na sax